gannaaw bi nga waxee nag xeeti njaay yi nga xam ne yoon da ko aaye te am ci ñu aaye yoo xam ne buñ ko defee njaay ma du baax da yàqu am ci yoo xam ne aaye nañ ko waaye du tee nag njaay ma wéy mu lay xamal ne la saa yuñ jaayante jaayante gu yoon aaye woon dayit ne yàqu na boole ca aji jaay ji ba léegi moo garanté loola ñu doon jaay lu ci sikk amul ca xew rek moo ko gàddu moom aji jaay ja lu may nag ka doon jënd jël jaay moomee ba yore ko su boobaa moom moo ko garanté suñ caa soppandiku nag ndax moomu gu ko ndegam njaay mi baaxul rek bu xasee xam ne li mu jënd ñu ko jëflante baaxut da ko wóor ne moomu ko suñu caa jariñu waaye nag yore gam ko yore moo tax ñu ne ko yaa gàddu la ca xew nga xam ne bu ñu nee njaay ni yoon ne baaxut li fekk rawut ba tey ka doon jaay moom moom lam doon jaay ak jënd ja waru caa jariñu dara waru caa soppandiku gannaaw ba mu ko wóoree ne liñ jaayante yoon ne yàqu na du tee nag yor gam ko yore ci loxo moom ak jënd ji tax ñu ne ko yaa gàddu li fekk jëmm ji génn sa loxo su demee ba raw itam maanaam delloo gu mënta amati daañu wax loolu nu muy demee ku jënd jënd koo xam ne yoon nee na baaxut te bu fekkee rawut dañ koo war a delloo laata ma ko delloo nag mu doon ca jariñu loolee mu ca jariñoo bu ko delloo waale moo ko moom ndax ndegam moom bi mu nekkee ci loxoom moo ko gàddu kon nag moo taxit lam ca jariñoo njëkk mu koy delloo kenn du ko ko laaj waaye nag moom itam bu fekkee doon ci sonn nit ki di ko dundal ak lu mel noonu du wax ne dañ ma delloo li ma ko doon dundal ndax ndegam doon na ko jariñoo njariñ la mooy wecci lam ko doon dundal bu dee nag loo xam da ko jënd yoon ne ni mu ko jënde baaxut moo ca sonn te amu ca nag benn benn njariñ ki mu jënd ay garab yoo xam ne tàmbali woon na ko suuxat ba sonn ca tekkutoo mu am mel meññet muy mën a jariñoo loolu moom daañu seet bu dee delloo garab ya ñu delluwaale ko la mu ca sonnoon ndax jëriñu ca dara bu nee nag buñ jaayantee jaayante goo xam ne yoon nee na baaxut te yéegut dañ ko war a dindi ñu delloo njaay ma ko doon jaay delloo njëg ko doon jënd su fekkee ne ñëpp a maase ci ne nañ jaayantee baaxut kon bu jar ñu dem ci àttekat muy àtte naa tebbi naa njaay mi mbaa dara waaye nag bu dee jaayante boo xam ne ñenn ñi dañu ne jaayante gi baax na ñenn ñu ne baaxut doon am na ñu wax daal baax am ñu wax ko baaxul moom faaw àttekat ba moo koy tebbi wala ku taxaw taxawaayam ni ki kilifa gisit na foofu mooy dindi jaayante googee dafa joxe takk-takk ne nañ jaayante bu yoon ne baaxut léeg-léeg muy ñàkk baax koo xam ne ñëpp ca maase léeg-léeg muy ñàkk baax koo xam ne am nañ ci àndut jàpp ne moom baax na bu dee dañ caa wuute ñee wax ne googu jëfalante baax na ñeen ñu ne déedéet doonte sax ña ko wax nekkuñu ci ngir mi wuute ñoomul rek ci ngir mi dañ ne woon bu fekkee dara yoogu ca nañ ko delloo ka doon jaay mu ne nag bu fekkee ne xas naraw nga xam ne delloo ga wees na te muy lii nga xam dañ caa wuute ñee wax ne baax na ñee ne baaxut jëggëñ jaayante woon te leen leen di bàyyi duñu soog njëgg dañuy wax ne rek nañ bàyyi kon njaay mi dog ci kaw jëndkat bi fay jëggëñ ko ko jaaye woon ndax delloo gi wees na te jaayante gi ñëpp maa si wuñ ci ne baaxut am na ñu wax ne baax na loolu nag takk-takk la boo xam ne li ci ëpp rek moom la ñuy jëfee am na ay benn benn yoo xam ne nag yoon dana wutee ci jaayante ga baax na baaxut te du tee ñu ne ka jënd day joxe xayma ja di joxe jëgg te li wax fii mooy takk-takk bi mooy ndegam dañ caa wuute rek te delloo ga wees na dëggëñ jaayante woon rek mooy wéy lim ci teg nag mooy bu fekkee ne ñëpp maase ci ne jaayante googu baaxut yàqu na moo xam ci biir mbir mi la moo xam ci bitti mbir mi la ñëpp ci marché kon moom ndegam delloo ga wees na dañuy seet bis ba jëndkat bi jël loolee ko doon xayma maanaam ku seet rek ci ñu ko xam fu xayma ja war a toll rek ki doon jënd fay xayma joojee dañ bàyyi njëg ga ñu waxante woon ndegam dara lu ñuy xayma ni ki aw fas wala kër wala xeetu rajo yu mel noonu bu dee nag bis liyu mooy lu ñuy natt mbaa lu ñuy teesi mbaa lu ñuy wàññi lañ ko jaayoon raw na waaye ndegam lu ko wecc daa yombu nañ seet lu tolloog loola rek mu delloo ko ndegam xam nañ ko te man koo am léegi bu dee xeetu pepp mbaa ceeb ak lépp ñuy peese mbaa di ko natt mbaa di ko wàññi loola raw na waaye lu ko mën a wecc moom am na fi dañ ko wax ne ko delloo lu toll noona yow mu jëndoon da ngay delloo lu toll noonee ñu delloo la seen njëkk su fekkee nag xamuñu loola nu mu toll woon mbaa xam nañ ko waaye daa amatut mëne su ko am ba tey kon xayma ja rek lay delloo moom mu jëndoon dañuy seet bi fa ko àttekat bi àtte buñ xaymaa rek ba ne nangam moo ci yell ki doon jënd fay lu toll noonu muy xayma ja day ne woon bu yoon ne njaayante nii baaxut ba dañ koo war a tey bi day fekk loola rëwut waaye bu fekkee xas na raw nga xam ne tey bi nga wees na moom la wax léegi ne ka jëndoon day téye lam jëndoon wax na la nag la mu war a jox jaaykat ba benn muy xayma ja ndegam may lu ñuy xayma joxe xayma ja bu dee gis lii dañuy peese mbaa natt mbaa wàññi mu joxe lu toll noonu ndegam mën naa am mu lay wax nag lan la ñuy jàppee ak raw ba ne ki jëndoon na téye lim jëndoon du ko delloo mu tàmbalee ko ci su fekkee loolu nekkut lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi nekkut suuf tam boole ci buñ demee rek ba lam daa jar jaratu ko nga xam ne njëgam daal léegi gën naa yokku mbaa gën naa wàññi ko loola kon ak raw lañ koy jàppee nga jëndoon jënd bu aay moomee day téye loola di ki bu doon am xar wala ak kër wala oto yooyu nga xam ne moom nekkul lu ñu peese baal ci baaw ñu nekkul suuf bu njëgg demee ba sopp ko rek moo xam daa yokk ba xam moo xam daa wàññi ko rek delloo ga wees na bu dee nag li ñuy peese mbaal ci mbaa wàññi mbaa muy suuf moom ñu dem ba njëgg yokk mbaa mu wàññi ko du ko rawale mooy du tee rek ka jëndoon delloo ko ñu delloo ko njëgam mu teg ci bu dee xeet ndundat bu demee ba yàgg dañ ko jëflanteeg léegi yàgg na jër koo wépp su ko risaale fii nag yenn weer fekk ay imaam Maalik moom da caa wax ñaari wax ci kaw na mu seetloo ndax daa seetloo ne bu dee lundat woo xam dafa doon gone weer rek bu ko amee jëm ji daal di soppiku maanaam jëm ji yokk yokk boo ca mën a xàmmee te bu dee lundat wu mag nag moom yetti weer sax nee na du ko rawale fekk lam jublu mooy lundat woo ni ki am xar mbaa leneen bu xësee mage lool bu am yenn weer mbaa yaari weer ba ci yett li ci ëpp doo ca mën a xàmmee nam fa yokkoo mu mel ni kon bu dee dundat wa dafa nekk wu ndawe dañ ko jaayantee buñ ca tegee weer rek delloo ga raw na bu dee nag dundat wu magee moom li feet weesu wu ñetti weer mel na ne kon delloo ga yeesut mu teg ci ka jëndoon yóbbu na loola ci beneen barab boo xam ne yóbbu ga war naa amee coona doon ca moom sax sonn ca ndax daa jekku boppam am lu ko yóbbu lit fa nga ko jaay woon daal ak fa nga ko yóbbu moom daa yes na ci am ab coona dañuy jàpp ne kon loola raw na bu fekkoon ne dañ ko jaay yóbbu na ko ci barab waaye yóbbu ko lu yomb la du metti ci kenn kenn du ci am coono moom loola kon rawagut bu teg ci bu jëmm ja soppi ko jëmm jëm jaayante woon fekkee daa soppi ko moo xam dafa yooyoon wëlbatiku suur ba dafa suur wëlbatiku yooy wala mu soppi soppi ku am sikk mel ne mu pat mbaa mu làggi mbaa boog moom ci boppam mi ko jënd moo ko soppi ni ki bu dee ay yére mu suub ko mbaa bu dee dugub mu wal ko mbaa mu defar ko mburu yépp delloo ko daal na yees ba tey jamono yi jaam amee bu jëndee jaam bu jigéen jënd goo xam yoon nee na baaxut waaye dem na ba joteeg moom moo xam jéeg la moo xam du jéeg dagam jote naag moom rek dañuy jàpp ne delloo ga wees na ndegam ka jënd ba joteeg moom magum jëmm la maanaam mu kalof la bu dee gone gu góor it jaam bu jigéen ba mu jëndoon di gone bu joteeg moom ba ndaw ga deñ ñu jàpp ne kon loola rawale na ko mëne su koo dellooti ba tey lam jëndoon bu ko si génn ay loxoom ni ki mu jaayaat ko jaayante goo xam ne moom gu wér la wala mu mayee ko mbaa mu saraxe ko mbaa mu xubbise ko ma def ko ci yoonu yàlla yëpp loolu dal na koy rawale bu ko jaayoon geneen jaay goo xam ne moom baaxul nag kon rawagut waaye ndegam da ko jaayaat jaay gu wér moom mbaa mayee mbaa saraxe yooyu moom raw na ba noppi lam jënd jënd goo xam yoon nee na baaxut bu fekkee xas na ko tayle keneen mbaa mu luyee ko keneen luyee goo xam suñ caa génn ba tey loola rawale na ko buñ ko jaayee suuf mu gas ca ab teen wala mu gas ca ak siyaan wala bu dee suñ jamono li xew mu ñot ndox ba andi ko fa day mel ne kon loola rawale na ko suñ ko jaayee suuf mu jëmbat ca ay garab baa mu tabax ca te gis ne jëmbat ga baa tabax ga lu am am solo la nekkut lu ñàkk solo lu am am solo la loola rawale na ko fekkoon nag jot na caa jëmbat mbaa tabax na ca waaye jëmbat ga amul solo mbaa tabax ga amul solo loola du ko rawale mu jëmbat fa genn garab mbaa ñaar rek mbaa mu def ko làkk boo xam ne amul solo loolu tey ñu delloo ko dañ koy delloo jaaykat ba te moom mu jëndoon ba jot faa tabax tabax bu ñàkk solo ba jot faa jëmbat jëmbat bu ñàkk solo ñu seet xëy na loolee mu fa jot a def muy peen ba rek ñu delloo ko ko dañu teqale foofu di wax naa bu fekkee ne suuf sañ ko jaay dafa tabax wërale ko ni ki miir rek wërale ko mbaa mu jëmbat ay garab wërale ko suñ gisee ne miir ba mbaa dañ ko wërale ci garab bu am coono la dañuy wax ne kon suuf sa jël su ko delloote da koy téye rek waaye kenn du ko wax ne ko delloo ko moom daa tabax rek wërale ko ni ki miir wala jëmbat wërale ko di digg boobu dara nekku ci waaye daal nam ko miire mbaa nam jëmbate wërale ko day lu am am solo loolu kon tax na deesu ko delloo su fekkee ne itam suuf sa lépp la jot a tabax mbaa lépp la jot a jëmbat mbaa boog genn wàll ga moom ci ni ibn xarafa waxe genn wàll ga jot na koo tabax mbaa jot na koo jëmbat delloo ga daal nay raw moo xam nag nam tabaxe mbaa nam jëmbate day lu jafe-jafe mbaa day lu yomb yomb waaye ni nga ko déggee daa matale lépp suuf sa mbaa lay jot mbaa genn wàll ga bu fekkoon ne nag ca genn wat ga rek la tabax mbaa mu jëmbat ca ñu seet nag la mu tabax mbaa la mu jëmbat mu tolloog ceeru suuf sa mbaa kaar ba dañuy wax ne kon moo xam nam ko tabaxe mbaa nam ko jëmbate jafe na mbaa yomb na ñoo ci yemoo loolee mu jot a jëmbat mbaa mu jot ko tabax muy ceer ba mbaa kaar ba moom delloo ko wees na waaye la ci des moom nañ ko delloo boroom su fekkoon nag la mu jot a defar ci tabax mbaa jëmbat ci benn wet la féete te matul kaar ba sax kon lépp la ñuy delloo benn yoon dañuy jàpp ne kon delloo gi wéerut doonte sax la mu gis defar defar ba jafe na pen ba mett na itam waaye matul sax kaaru suuf sa moom dañ koy delloo rek saa yoo déggee nag ci jëndoon sonn ca ba noppi ñu ne ko dañ koy delloo daañu seet la mu fa jot a peene ñu fay ko ko ndax gis nga li ko cotale du am jublan yoon a seet rek ne jëflante njaay mi baaxut te delloo gi wéegut ñu ne ko delloo ko buñ dee seet nag lam def defar ndax tolloo naag kaar baag ceer baag nangam ak nangam duñ seet yaatuwaay ba xayma ja ak wëralu suuf sa la ñuy seet ñu ne nag lu ñu ne woon bu ko defee raw na bool su ko delloo laata ñu koy atte far la ko rawale woon delluwaat na meloon day jàpp ne kon rawatut mel ne dañ ne woon moom mi jënd jënd gu aay bu génnee ay loxoom rek ne kii mu mayee ko baalu ko nuru delloo ga wees na bu fekkoon nag laata ko yoon di atte loolee mu maye woon te fekk mu jënd ko jënd bu aay ñëwaat na ci ay loxoom ni ki kooku da ko koo mayaat baa kooku daa faatu ci misaal mu doon ko ci moom mu ne kon dañu jàpp ne dëmm ji delluwaat na ci la ko rawale woon kon dañ ko delloo ka ko jaayoon ca bu jëkk mel ne mu saraw benn yoon lu may nag soppiku marchir te mooy soppiku njëg dañ ko jaayoon bu demee ba li wax la mu doon jar jërëtu ko dañ ne woon bu fekkee ne du lu ñuy peese mbaa natt mbaa wëññi du suuf dagam rek la mu daan jar jërëtu ko yokku na mbaa wàññiku na loola rawale na ko deesu ko delloo lu mel noonu nag moom bu demoon ba njëgg delluwaat na mu toll woon bu njëkk itam day jàpp ne raw na raw na rek ba tey moom deesu ko delloo